immobilier beaucoup de faits, Yen, ngeen 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër is it? وجهت لهادي الأليم يقلي وفي ردي وهو ينير نقلي وجهت للهادي الأليم يقلي وفي ردي وهو ينير نقلي يخرج للنور وابقى البركات وسكن نادي أهلا والحركات علمني تعليم من لا يفهم عليه الزهد ونزر ولسوى حقل يساق ما زر لو كلامي ولا ولقالي وعملي وليني بالي ملكني الأفاد والماليا وفكك لي أكون هانيا كون للإلاق للمرادي سر والجار بلا أمرادي بالبلد للمواسى يا أزل وتلم منقولي بالكسر والأسرار والمنقول لوجه الكريم والنعمة ينفعنا ولا يرينا ظلما لو كتابي وهو الحليم ونيتي لوني تعليم هبلي يا وابك ناقلي ككتب الخدوز لا في نقلي هبلي يا وابك ناقلي ككتب الخدوز لا في نقلي هبلي يا وابك ناقلي ككتب الخدوز لا في نقلي هبلي يا وابك ناقلي ككتب الخدوز لا في نقلي xëy na ñu ni tamit googu farlu ci gëstu amun ko waaye dinañ jéem rek roy ci li muy def ba xam ndax ndigal rek lan ci am te ndigal moom taalibe saa bu ko jëfee lu mu lot lot yéene ji muy am ci jëfe ndigal mën na koo dimbali mu mel ni ñun ñi ñëpp fi daje ak ñeneen ñu ne ci yeneen barab di def lii ñuy def leneen leen fi dajale mooy liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi tamit liñ ci mën a waxtaane bari na ndax waxtaane sëriñ bi moom day mel ni rek àdduna àdduna li fi nekk yëpp kenn mënu ko waxtaane ci benn jataay kenn mënu ko waxtaane ci benn bis kenn mënu ko waxtaane ci wenn weer kenn mënu ko waxtaane ci ay waxtu ñun li ñu tànnoon tey ci lu ñu jàpp ne lu ñu war a fàttalante la lu jëm ci sëriñ bi moo di ñaari tomb rek bi ci njëkk moo di li ñu sëriñ bi defal lenn ci lim ñu defal xam guñ koy xam dana tax ñu fonk li ñu nekk dana tax ñu mën a gëru góorgóorlu bu baax ci di ko liggéeyal guddeeg bëccëg ci dul am tàyyi te du am sonn misaal mi ñu ciy njëkk a tàmbalee te lenn li jóge ci ay waxam dafa waxoon ni kullu man bi yaluusu yasaadu wa innahu min al azaawum baadu wax ni képp koo nga xam ne aju nga ci man mucc nga ci fitna ak loru àddina ak alaaxira loolu yi tamit li tax ñu fi taxaw moo di nit mën naa nekk ci àdduna di góor góorlu góorgóorlu ay jaamu yàlla te du tax mu am loolu mucc ci at fitna yi àdduna ak alaaxira nit mën na fee nekk ba jóge fi góorgóorlu kéemtalaay kàttanam te sunu borom du ko ko jox ñun nag ñu am tawféexu sëriñ bi tànnuñu ci yërmandeem boole ñu ci ñooñee ci ñuy woye ay ñoñam ñoñ yooye nag sëriñ bi fàggul na leen lépp lu mat a fàggu ci àdduna alaaxira jéen jëm tamit sëriñ bi fàggul na leen fa lépp lu mat a fàggu misaal yi ñu ciy joxe rek li ëpp ci ñun ñii ak ci yeneen mbooloo yoo dem ñu ci ëpp ci Dakar gi lañ juddoo yaroo fi ñu jàngal leen ci école nasaraan lépp lu ñu jàpp ne war nañ leen koo jàngal ngir yaakaar njëriñu àdduna ëllëg ci ñoom nga xam ne fañ leen awale woon jëmale leen fa rek àdduna dong la li ëpp ci wayjur yi doon sàkku ci ñoom ngir ñu mën koo jékku ndax misaal mi mooy jël sa doom joxe ko ngir mu jàng alxuraan ci daara sax ñu bari xebar nañ loolu ngir yaakaar njëriñu àdduna rek li ëpp ci ñun yi tamit ci barab yooyu lañ jaar waaye ci yërmande sëriñ bi mu jël ñu defar ñu li ëpp ci ñun mu defal ñu ak taalibe ñu ciy nab nab bi mu doon suñu yitte guddi doon suñu yitte bëccëg ba lépp loo nga xam luy fëkk am xel la ak di wàcce doomu aadama ak di ko doyadal ak di ko suufeel ñu mucc ci ndax ay ba dafa waxoon ni laqad xalaqna insana fi kab fi ahsan taqwim summa maradnahu asfala safilin te li ëpp ci nit ñi bu ngeen seetloo fi jamono toll egg nañ ci asfala safilin ndax àgg nañ ci jëfe jëf yoo nga xam ni mala yi sax duñ ko jëf ñu mën cee lim yu bari waaye day doy li ci des xel yi àggale ko loolu yëpp yi tamit amul lenn luñ ci musal lu dul yërmaande sëriñ bi rek yërmaande sëriñ boobu yi tamit moo tax li ëpp ci ñun tey nga dox ba dajee ku la mat bàyyi mu war warmal la sargal la ba mel ni kuy nuyub sëriñam te léeg-léeg nga mel ni man di nga xam sa ci sa bopp ak sàggante ak manqué goo nga xam ni warma ji ñu la jox yeyoowoo ko waaye sëriñ bi donga la dimbali suturaal la nëbbal la say ayib defar sa jëmm bu ku la gis bëgg la fonk la naw la itam bokk na ci jigéen ñi nga xam ne fi jamono toll nga xam ne yàqu na yàqu gu kawe goo nga xam ne exposé nañ leen ba xamal leen ni jigéen kenn waru koo tënk jigéen kenn waru koo euh, tënk ci kilifteef dañ koo war a bàyyi muy dund lépp loo xam ne lu mu war a dund la lu mu jàpp ne lu mu war a dund la xamal leen ni tamit yéen a góor ñi dangeen war a tolloo ci lépp lu mu mën a doon te yooyu yëpp nga xam ne jamono indi na ko ak société indi na ko ci anam yu bari liñ ci musal ñun mooy topp gi ñu topp sëriñ bi rek buñ topp loon sëriñ bi ñu rek ñëpp ci maase yam fi ñuy xalaate fi li ñuy xalaate li ñuy wax loolu la ñuy wax ni ñuy gisee àdduna noonu dong la ñuy gisee àdduna kon yooyu yëpp nag day tegtal liñ sëriñ bi moom ak texeem gi mu dig ñoñam doonu texe goo nga xam dañuy dem ba alaaxira sëriñ bi ne kaay leen dugg àjjana fii lay tàmbale ndax dox gi muy dox sa digganteeg lépp loo xam ne lu islaam xaraamal nga di ko daw sa kéemtalaayal kàttan ak lépp loo nga xam ne luy joxe ngërmal yàlla la nga daw jëm ci sa kéemtalaayal kàttan texe ci loolu lay tàmbale ndax ay alaama la ay màndarga la màndargay texe comme ni mu koy waxee alaamatu shaqaawa ak alaamatu saada yooyu yëpp nag sëriñ bi fàggul ñu ko ñu di koy yëg bu baax bokk ci fi jamono toll nit ñi fu ñu toll di jàmbat jàmbat njàmbat lu métti ci wàllu jamono ju naq rek ay ñàkk koom ak yeneen ak yeneen yu ni mel te teewul li ëpp ci murid di boo leen gisee jàpp ni jeexaluñ dara te li ñu yëg ñoom ñëpp koy bokk yëgandoo waaye teewut Sëñ Tuubaa def na ci ñoom tawfeex goo nga xam ni doyloo nañ seen boroom doyloo seen am-am te góor góorlu seen diine misaal mi rek daaray alxuraan yi ne ci ci ci dakaar wala feneen fu dakaar li fa ëpp ci ñi fa yóbbu seeni doom di ci fay seen alal ngeen ñu jàng ci muridi la ndax nàmpatal ak sëñ di ndimbali gum leen dimbali ba ñu xam ni nit ki li koy dimbali mooy mu xam diineem loolu tamit di tegtale itam li nga xam ne li ëpp ci ñun la ñu jaarul woon ci daaray alxuraan mettit gu mel ni metti nañu tax na ñuy dabb lool ci suñu njaboot ndax mag ñi dafa dañuy wax ni koo nga xam ne nee nga su ma doonoon gone danaa dellu jàngi nga yor ko mat a jàngal alxuraan yóbboo ko mu jàngi boo yoroon boo boo delluwaatoon doon gone itam doo jàngi ba yooyu ay dabaatal la yoo nga xam ni màndarga la yoo nga xam ne tax na boo seetloo da nga gis bu baax ni sëriñ bi dimbali nañu ci lépp loo nga xam ne mën nañoo may ngërmal yàlla bi ci des mu am lu mu fi bàyyi li mu fi bàyyi li ci jiitu ci liggéeyal ko mooy murit yëpp war a maase ci tënk ci genn kàddu muy kàddu xalif général nga xam ne bu diglee ñëpp def bu teree ñëpp bàyyi loolu tamit sag la boo nga xam ne fi fi àdduna toll communauté bi nga xam ne moom moo dese ci kaw suuf mooy di ndax keneen ku dul sëñ Muntaxa fi ne sa biir kër boo waxee am na ku sañ génn génn contredire la te doo ci mën dara dib sag di sutura boo nga xam ne saa suñ nekk lu jamono jaxasoo jaxasoo sëriñ bi dana gën a dëgëral suñu yaakaar dana gën a dëgëral suñu diine dana gën a gën a dëgëral sunu pas-pas yooyu yëpp di ay màndarga yoo xam ne war naa dalal suñu xel bu baax a baax ndax yonte yi alayhim salaam biñ fi jaaree ku ci nekk suñu sa mission saa boo demee ba nga xam ne sa xel wala sa xol dina rëngi-rëngi suñu borom dina la jox ay màndarga wala ay cëslaay yoo xam ne dañ ci sukkandiku ngir gën a mën a dëgëral sa ngëm ñun tamit buñ seetantale fu jamono toll lu cool yi bari bari lu mu jaxasoo jaxasoo suñ tubaab danañu wan ay màndarga yuy gën a dëgëral sunu yaakaar yuy gën a dëgëral sunu pas-pas ci sunu borom kon loolu bokk na ci bàyyi fi leneen loo nga xam ne tamit képp koo xam ne jub jafe na la soo ko dee jàng di jub soo ko day jàng di baax soo ko day jàng di am leer soo ko day jàng di wér soo ko day jàng di am ko muy xasida yi du jar ñuy lim tur yi ci xasida yi am na xasida yoo xam ne wax nañ ni ku njubta boo ko dee bari loo koy jàng da nga jub ndax wax na ca biir wa bi kitaabiya rabbi rabbi kulla mutaalain li waji rabbi wa bi kalaamiya wa bil ishaara ihdi muridin yatlubul inaara te àdduna li fi nekk li nit di fago lolou yàlla noppi na ci ni ko sëriñ Saliou Mbacke la andu waxe won ni kep ko nga xamni war nga bàyyi xel ni doomu adama ñaari biir yi ko yàlla jox benn bi li ci wara dem mom moko gàddu muy fi ci aduna wa ma min dabatin fil ardi illa ala allah rizquha yarzuq man yasha bi xeyri nga xamne kon Sabab lu agud, dañ la koy sante rek gorgol dañ la koy sante la dañ la ko sant ngeen nga gorgol lu waye la nga wara mag la nga wara ñak yeb sun borom nopi na ci la lay jariñ deug nak moy am leer yatlubul inara wa bi kalam ya ihdim wa bil ishar ihdim muridin yatlubul inara leer gogu nga xamne bis ba nga xamne sun borom wax nañ dana wacc jant bi xeli jaxaso ku jub baay mun la juruma la ku jub ndey mun la juruma la su leer goo nga xam ne mooy tax doo tiit doo jàq sëriñ yan euh, alxuraan wax ne inna ibaadi laysa alayhim sultaan dellu waxaat ne laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun du ngeen tiit du ngeen jaaxle benn yoon loolu yëpp sëriñ bi fàggul ñu ko kon lii jaadu te di ñu jariñ mooy ñun ñëpp ñu bokk xam li ñu am lu mu doon bu ñu mënta xam lépp tamit ñu góor góorgóorlu ci xam li ñu ciy jariñ ñu fonk ko baax a baax a baax fonk ko ci liggéeyal ko ci suñu doxin ak suñu melokaan ak suñuy jëfin ndax waxoon na ni bu kenn jaare ci yéen mba yab ma misaal mi rek moo di yonent bi sallallahu alayhi dañoo wax ne ba mu nekkee Màkka bokk na ci lii li nga xam ne tax na lislaam daan yokk moo di dafara yaroon saxaabi yi ci jikko yu rafet yoo nga xam ni tax na ñañ daan jëflaateen doonte la doon ay jullit xemmem nañ seeni melokaan ba looloo leen tàbbal ci lislaam kon day jaadu kenn ku nekk ci ñun war ngaa góorgóorlu ba donte la kenn nit la nga tàbbal ko ci li nga nekk liggéey la ko sëriñ bi te loolu mënuñ ko am di fiek kenn ku nek defaroo sa bop defar sa jikko dexaw defar sa doxine buñ mën la xemem ba ba def la xarit ba dila roy bi ci top modi kenn ku nek li ëpp ci ñun am na kum la bolal mu doon mu doon sam serigne Touba nga xamne ba ngay jaayante ci kanam nga dem jaayante mom ngir jëm serigne bi mu doon sa wasila la la ca war nga góorgóorlu ci sa kéemtalaay kattan bu la kenn mën ci ay ndigalam looy dugg mu yëg ko te nga foo nekk nga toog toogin woo nga xam ni bu la bettoon doo wëlbati ko di jekkalaat sa toogin loolu wareef la ci ñun ñu delloo ko njukkal doo delloo doo njukkalee ko sëriñ bi ci ci aw doxin ak ak melokaan ak ndigal yi mu fi bàyyi nga xam ne saa su nekk ndax yoon murit du yor woo nga xam ni dafa am fu muy yem saa su nekk bu ngeen seetloo bu fi sëriñ bi jógee képp ku ko fi toogal sëriñ bi naa la naal yoo xam ne kooku moo ko war a àggali te saa buñ ci tollee dana woote ne bëgg naa ñu def sàngam ñu liggéeyal sëriñ bi sàngam loolu itam ñu am ngoruk lépp loo nga xam ne ndigal la lu bàyyi ko ki ko fi toogal cib liggéey ñun ñëpp ñu def ci suñu kéemtalaayal kàttan loolu mooy li ñu war ci moom bi ci des tamit moo di gannaaw suñu wasila yooyee kenn ku nekk mbooloo ma nga xam ne mooy tool ba ngay liggéeyal sëriñ bi nga góorgóorlu fexe ba bu la ca kenn man ak fu mën a doon rek te nga am woyug nag di sëriñ Abdoulahat radiyallahu anhu waxoon say wi kenn attunu ko waaye ku ci nekk nanga nga am matuk li nga matt mi nga àttan ci say bi na ko gàddu ba fu ñu la seen seen la ak moom doo tàggook moom benn yoon te lépp lu di wareef nga góorgóorlu ci sa kéemtalaay kàttan su ko defee dañuy wàccee sunu kàddu rek lu ñu doon jéem la di ndigal lu bàyyi ko suñu Moodu Badar di di fàttalante ak soññante boo nga xam ne day dox ci diggante mbokki taalibe yi saa su nekk nii ñu ko defee bari na ñu fi toog ñoo xam ne ñoo ñu ko gën a mën waaye ndigal la lu ñu doon jéem jëfe rek yàlla na suñu borom doollee dimbali yàlla na sëriñ bi sàmmal boppam yàlla na ñu sëriñ bi boole ci tànneef yi nga xam ne la ko gënal ci ay ndigal ca la ñuy sax ba faw te mu guddal suñu fan dolli suñu wér donni suñu bëgg sëriñ bi ndax li ñuy bëgg ci àdduna lépp mu ngi ca loxo sëriñ bi li ñuy moytu yi tamit lépp sëriñ bi mucc na ci kon daw topp ci moom dong muñ ciy musal kon sëriñ Badar bisimilah ñu ngi jégalu bu baax a baax. sëriñ Babacar ñu ngi nga xam ni moo daaneel kàddoom léegi ci soññe yu am solo yi nga xam ni moom la doon def ndax mu na waxee rek xëy nekk du ñàkk ci seen biir ñoo xam ni jël ki kàddu di wax moom ab natt lay doon ci ñoom faaw na di ko def ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ni wax ci mbooloo moom ñaara ko man muy doof ak borom xam-xam xaadimal xaadim doon wax ni wax ci mbooloo li tax mu jafe mooy kenn ku nekk ak dégg-dégg la yore waaye li nga xam ne moo ci woyof nit ki mooy yow miy wax pas-pas bi ci amee mooy liggéey lépp kon lu mën a doon rek ci dégg ni mën a doon rek bu boobaa des na ko yàlla defal dégg gi tamit ak topp gi yal nañu ko yàlla defal barki Seexul Xadiim ñoo ngi la sant bu baax ndax nii daful mën di ñàkk ndax kenn nit mënut di te woo dara ndax waxtu wu ne nga teew moom ak fu nekk nga teew ko doon ngi la ciy sant bu baax ci passé nga xam ne kenn ku ko déglu te teewlu ko sant bu baax di sant mbooleem jàng ko doxu si yi fi teewoo kuréel gi nga xam ni jàng na ak kuréel gi njëkk bàyyi ñoom ñëpp ñu leen sant. waaye di beral jaajëf tamit kuréel bi nga xam ne mooy cellule waa Muqaddimatul Xidma li nga xam ne moom la ñu doxoon daal di seet si leen tey muy ñoo xam ne wax dëgg yàlla bi ñu tabbisee ci mbooloo mi ak léegi yàgg na yàggul waaye nag wane nañ ci pëstéef boo xam ne mel na ni ba nu koy sos ñun ak ñoom ñoo ko bokkoon te mbooloo moom noonu rek lañ koy waxee ñi ciy tàbbi ñu démb ñaar ña ci nekkoon deux mille un deux cinq ñoo ci yëpp. kon yàlla na sëriñ bi waaye nangu ñun ñëpp ak seen xam ne ci Babacar ñu ngi lay bu baax di dégg bu baax baax a ci waxtaan yi di sant bu baax yi tamit ndax euh, noo ngi fàttalee lu jëm ci wàllu programme yi nekk suñu kanam ndax euh, li ci mat a rek am nañ ni soññee nañu ko wax programme yi nga xam ne moo nekk suñu kanam te def ñaan yeewee ko ba beneen yoon. waaye li si jiitu mooy addi yi nga xam ne ni ko doon laaj te mbokki taalibe yi nekk ci daara ji rek war koo façon joxe ko ndax suñu digg ak sëñ Tuubaa moom waxtu wu nekk yaakaar naa am na benn son boo xam ne sëñ Alpha Mbay mi dugal na ko ci groupe bi barki démb kenn ku nekk déggal na ko sa bopp Cheikh Mamadou Muntaxa mu wax ni addiye nañu bàyyi xel addiye te xam ne mooy cosaanu liggéey bi mag ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa nee na ci loolu rekk la leen Sëñ Tuubaa defaree xam na ni tamit mosuñu cee dañ di ko def waaye dañuy fàttali bëgg ñu xam ni rek moom mooy li jiitu ci mboolem lu mën a doon te sëriñ waxaloon na booba tuuba li abdin muridin saadixin la huma bi xidmatin aw bi xubbin aw haddiyaati kon addee ji lu lu mënta ñàkk lay doon pas-pasu addee nag nit indee na ko nu ne Sëñ Tuubaa defal la ca lu nekk am na koo xam ne ak kopp rek la ma sa gis mu rafet mu jënd ko indi ko jox ko Sëñ Tuubaa addee du ko sëriñ bi ne gopp bi loo ci jublu mu ne ko dama koo gis mu rafet rek ma jox la ko sëriñ bi da ko waxee ne am nga ci gopp bi loo xam ne lu dul gopp bi mënula koo may sëñ ma siisa ndongo bay na ba mbay mi jeex mu boole gerte ga ak ngooñam ak lépp jaay ko mu nekk dërëm mu jël dërëm bi dem gànnaar di ko yëtti sëñ Tuubaa dox ba yegg bu mu yeggee bi mu ko gi am koo xam ni ñëw na ci ndigalul maam Cheikh Ibrahima Fall indi junni sëñ Tuubaa daa wax ni junni bii lay li tax mu daje fi dërëm bii dërëm bi lay seede si ndax ki ma jox dërëm bi amoon na yéene jox ma junni te man dërëm bu mu waaye yéene danaa la ko fulal mu doon ay junni mu doon koo xam ni tamit addiye na mu ko waxe woon rek sëñ Saliou Mbacke moo wax ni addiye day fekk fu dara néewul mu def fa dara waaye day fekk fu dara nekk tamit mu baril ko waaye day fekk lu bari mu barkeel ko wax ni addiye bu ñu doon lim li nga xam ne moom la doon moom la def ci ay njariñ nee na mëneesu koo lim bind ci ay xalima waaye mëneesu koo bind yi tamit ci ay kayit ngir am goo xam ni addiye am na ko njariñ bayag wax ni serigne bi kat waxon na ni ki nga xamni neena dafa saxal di joxe addi sax neena na sax yi lek nit ci bir bàmmeel neena mom duñ ko lek ñun nak damay faral di wax ni yoy yeb lu bax la ak